Thiongor Thiongor gisoo ne la CAN est est le tournoi le plus du monde. ah mais loolu c'est évident gars wax nañ xanaa ci cadre géopolitique bi cadre configuration FIFA CAF mais les clubs européens mbaa xam nga ni ñoom ñooy ñooy booster le débat cest à ñoom ñoom tey CAN nu nu ñu mën di organiser wu ba du am wala suy am tamit mu am moment yoo xam daf leen di arranger ñu ngi ci. Hmm. parce que les clubs on se rend compte qu'ils ont maintenant tendance à interdire te loolu day am répercussion au niveau des régions de la FIFA cest dire Guéguerre bi fa la gën a nekk. te y a des clubs j'ai j'ai le président de Naples autant qui nous disait que mënuma di fay jour africain su ma ko soxlaa mu naan day dem kan loolu gis nañ ko fii je par que parmi tant d'autres entraîneurs qui ont parlé un peu de ce problème là donc la disponibilité des joueurs en temps réel pose problème en hiver ou en tey ci kan bi ñu wax kanu Maroc bi nii parce que gis nga diggante 15 ju 15 juin ba 2026. Euh, je pense l'ex il toutes les dates on a essayé toutes les dates pour xool ci benn intervalle la koy mën a organiser mais boo ci fe boo ci dem rek. gis nga benn fekk fa benn obstacle soit c' FIFA qui organise mooy compétition bu ñu wax coupe du monde des man seen compétition boo xam ne damay laaj.

bi ce n'est plus juteux bareetuñu xaalis ay club yu li ñuy gagné wàññeeku moo tax ñu bëgg créer seen super euh, super league super league c'est-à-dire le schéma est tellement complexe parce que les intérêts sont sont particuliers en fait ku nekk ak intérêt bi ngay defaan mais tant ñun africain tooguñu jël euh, des mesures strictes cest de façon aussi unanime quoi parce que le problème mooy souvent da ngay gis kenn ku beddeeku jël ay mm-hmm. choix gars yi la bedde mais je pense Senghor je le comprends dans la mesure où il avait essayé euh, il est dans un système quoi xam nga le système est très complexe parce que système dafa am profondeur bu sori xam nga Mor Sepe su nekkee président CAF c'est parce que système moo ko indi quoi mais tey boo xoolee